mais doom day yow bu la te lu la lu la teg teree teg sa micro boobu ba léegi. ah vraiment. bas bu léegi lan moo la teree teg sa micro. dàcc ah. bos. boobu léegi yaa ngi nekk si sa sa yëfu bopp. boobu léegi lu la teree teg sa micro. yow mën na yow ñu ngi si Oh. No, no, no, no, no. Mesdames, Messieurs les journalistes, camarades, votre attention, s'il vous plaît. Nous allons commencer l'exercice du volet. Je vais passer la parole au premier ministre dans une déclaration à la presse. Merci. Ah, voilà, il y a des gens qui Bonsoir, messieurs, dames. Je voudrais tout d'abord m'adresser à nos chers militants et militantes de Benno Bokk Yakaar pour leur dire de garder le sourire. continuer avec sa tradition démocratique, déroule le processus électoral tel que prescrit par la loi. Nous sommes dans la phase de vérification des candidats. Et je voudrais souligner l'exemplarité de notre démocratie de ce point de vue. Que toutes les listes puissent se vérifier et puissent évidemment porter leurs observations à ceux qui décident de leur validation. Ça veut dire qu'il est important qu'on puisse respecter la loi, il est important qu'on puisse respecter ce processus D'ailleurs, nous allions faire le point de presse puisque nous avons effectivement notre mandataire qui a également procédé aux vérifications des listes concurrentes. Je ne dirais même pas des listes adverses, mais des listes concurrentes dans une démocratie. C'est de la concurrence. Et je voudrais, euh, sans plus tarder, donner la parole à notre euh, mandataire, euh, M. Benoît Sambou, pour aussi lire les observations qu'il a eu à faire avant que je ne sur, par la DGE et par la commission de réception des listes, de notification aux différents mandataires sur les observations qui sont relevées solutions peuvent être que ce matin, sur convocation la commission de réception des candidatures, pour rectifier les erreurs matérielles qui nous avaient été notifiées. Les erreurs matérielles, ça peut être manquement qui arrive, les manquements matériels, il a pu y avoir souffrance. Après j'ai un droit de pouvoir examiner très rapidement leur liste avant d'aller en profondeur les autres jours, dans demain ou après-demain, en suivant le dossier. sur les vingt-huit listes départementales, j'ai relevé régions, qu'elles soient municipales, en l'espèce, il s'agit de l'institution parlementaire, c'est-à-dire l'Assemblée nationale. Le constat qui a été fait est que dans les départements de Bourg, de Thiès, de Louga et de Dakar, bien sûr, la coalition Yévi Escarbi ne respecte pas la loi. Je donne juste un exemple, et toutes les sont ainsi configurées. Quand vous prenez le département de dans l'ordre, ils ont un homme comme titulaire et une femme en deuxième position comme mais sur la suppléance ils mettent une femme d'abord et un homme. Cela veut dire qu'en cas de vacance d'un poste, en cas de vacance d'un titulaire quinze listes effectivement s'il n'y a pas d'erreur matérielle dans les dossiers de candidat. Cela va être fait les autres en phase de validation, en tout de dépôt, euh, des différentes requêtes qui leur avaient été faites, les notifications qui leur avaient été j'ai considéré que ça aurait été de devoir consulter leur liste mais demain, nous continuerons le travail pour vérifier comment les listes des autres coalitions ont été composées. da leen wax ne dañoo woon nekk ci période bi a xam ne commission bi xam ne moom mooy jël am na ay problème ci këyit yi nga joxe maanaam carte d'identité boo xam ne amul légalisation wala euh, extrait extrait boo xam ne euh, amul dafa périmé wala euh, duñ ko ci casier judiciaire CGE ma dem tamit war nañ leen li nga xam ne notification yi xam ne moom la ñu defaloon ma teg seen loxo kayit yi nga xam ne moom lañ ma laajoon ba indi yoon may def mu mën ba jël ay gis saytu li nga xam ne quinze débats day fàttali bari de dañ ko léegi doon doon dafa xaaral ba mu jógee fa ak jigéen remplacé ko ñu mën a maintenir équilibre bi nga xam ne moo am ci institution la ma gis nag ñoom leneen lañ Goudomp département Rufisque département Bambey département Kaolack département Kaffrine département Fatick département Dagana département Koungheul département Vélingara département Matam département Kolda département Louga ak département Dakar bi ne loolu moom yëgee ko dañu war tuddee seen benn góor ci ci bopp benn benn jigéen ñu ñëw ci suppléant yi jiital jigéen loolu nag may wax fii dafa xam ñu bari dañoo jàpp ni liste yi du la neexee da koy bindee yaa neex da koy bindee te loolu yow dafa ko dàq te loolu. ci noonu déedéet parce que ba léegi ñëpp ay acteurs politiques lañ ñu war a sàmm sàmm stabilité boobu sàmm suñu démocratie te ñu war ko rafetlu ak exercice yi bariwul ci mbéy mi rawatina nag Afrique kon bu ñu demee tey ba ñun ñu war a xool ñu listu wala ñuy jogante am ñu xool suñuy liste loolu aussi dañu ko war a sànni ñoom nag am nañu droit xool suñuy leer leer nañu def seen constat lu ñu te gis ñu yóbbu ko ba nga xam ne foofu la ñuy validé bu ko defee la loi s'appliquera loolu lañ leen mën a wax ñu ci toll xool leen liste yi ñu xoolee seen liste def leen seen